Fui meri, rawatina gendarmerie rawatina police fu ñu nekk teeru nañ ko gunge nañ ko kurwaan sapeur pompier gouvernement Sénégal daal l'état ñu dem ci cérémonie collective bi ñu mën a àggale lépp ci gàttal daal maanaam daal wax nañ léegi chef de village bi ngi fi président wu Fere mi ngi fi waaw monsieur le maire mi ngi fi tubaarkal macha allah ñi nga xam ne jotuñu jël kàddu yeneen jotaay yi bu boobaa ñu xaar seen i kàddu ñu wàcce ci loxo mbooloo bu boobaa jox leen kàddu wasalaam kon kàddu gaa ngi noonu moo tukkee ci Cheikh ak xaana kon ji taxaw di bëgg a wax mooy Cheikh na Cheikh Saad jëmm ji taxaw di bëgg a wax mooy woon الشيخ طارق وي وي بقى جلكات قوم شيخنا الشيخ سعد قوم الشيخ محمد تقي الله قوم الشيخ الخليفة خليفة جدران وكل قادة أبو سوجة القيل تشهد يوما بيد جاء جعلنا الخير تشهد يوما بيد جعلنا خطب الوجود إمام كل من جانا إني فرحت جميع الناس قد فرقوا خدوم سعد أبيه لله سبحانه موكي نيو نيو نيب سي تانك ناخ سانك بي جومنا با تاخاو ولا جيل كان وايي ليپ لو نيت دي ديف بيس بو ني ولا ساسو ني مولاي جيك بو وقت وي جوتي ديف تي نيون سونو تربيه تي سونو كو تيد كي موي شيخ الشيخ صالح دوم شيخ محمد تقي الله خير دوم الشيخ الخليفه دوم الشيخ نشاط موي خمال نيت ني كان موي موم خمال نيت ني لان موي ييتيم نون لول موي سون تاربي خمال نيت ني توكي بي مو دون سي الشيخ شيخ نشاط سامام كان توكي نان اني وان قفت الى السودان لم ارجو غير واحد منا شيخ نشاط بول شيخ محمد تقي الله تكي بي لسمام دان تكي نان إني نويت ربنا بالسفر نحو السودان وبلاد الحذر وقد عزمت وتوكلت على من لم يزل له الكمال والعلا شيخنا الشيخ صاحب والشيخ محمد تقي الله والشيخ الخليفة وكل شيخنا الشيخ صاحب وخونا لك رجبت أرضه سمام كنت كير مدار سمام منكر بدر سمام تفجلور لنا شن سيخ أبو محمد تقي الله ونحن نخي باركيلوجيو أنت سعد السعودي يا ابن الكمال ومنار الهدى وسنس الزوال وغوص البراء وغياس البراء شن سيخ أبو محمد تقي الله ونحن نخي باركيلوجيو تعالوا إلى كأس سقانا بها سعد فليس لها ساق حبيل ولا بعد هي الامن من كل مكان وملا اذا ما وعيت الله عن الوعد والوعد يا خينا لجزى الله بالاحسان سعدا فانه سخانا كعوسا لا يمل شربها شرك صب شرب تقوى الله قولوا خينا ɗi ƴetti hawduhi tori lowanɗi jikru fetliri asoli kuɗɗi kafiri ni wawi ni kosani ɗum ceerno cheikh abou cheikh mohamed taqillah ujunaeɓoa wallahi saadu men mala dokkaɗo dokke mum ngala cariɗo diine mum jala ɗimtama ɗo ɗum sahari ceerno cheikh abou cheikh mohamed taqillah كلنا خدلا والله صعب من صفي جمال من فكان نفي كيفين فل من كفي نوما سجن مسادم شمس حق شمو متقيلا كلنا خدلا ويدني جوا كالهدي دين كاي تصاب من هدي وهي فشيخنا الولي خليم سعد حيدر سجن فشيخ احمد شريف وحيدرة suñu neexee mën a leader waxee ko Cheikh Mamadou di am Cheikh Mamadou العقيدة فريق سعد وحيدرة شباب شباب وشباب تقي الله دوم الشيخ الخليفة دوم الشيخ الشباب شباب وشباب تقي الله دوم يا حجة ويد الشيخ محمد الأقوى دوم الشيخ طارق ويا دوم الشيخ محمد واصل المبارك شباب وشباب تقي الله دوم الشيخ محمد تقي الله دوم يا السعداني دوم الشيخ الشيخ عبدالي دوم الشيخ محمد واصل قبله يا عباد مملة شيخ الخليفه دوم شيخنا شيخ سلمان شيخنا شيخ سلمان شيخ مامي قبله يا عباد مملة شيخ الحضرامي والشيخ الخليفه قران خالق بين الحضرامي تبعنا في الكل اله النامي الحمد لله على الايمان بالفضل والكرم والاحسان شيخنا شيخ سلمان شيخ مامي قبله يا كرم شيخ سلمان شيخ مامي يا من شيخ سلمان شيخ مامي يا رب شيخ سلمان شيخ مامي قبله شيخ سلمان شيخ مامي قبله شباب الشمال تقوى شباب الشمال تقوى شباب الشمال تقوى شباب الشمال تقوى يا رجال يا لبنان تمامينا شخصك يا أخي يوم البيت يا لبنان يكسر الدم طلع الدم أين رأى أشهد تشهد يوم الدين قال الله شفت قلت خيولا سمع إني فرحت جميعنا سقط فريقه قدوم سعد أبي لله سبحانه شمس سقط ختم الاسجار الأشجار وخفروه ثم الكلاب مع الكفار نصرانا شفق تقيلا سما هل عند بدر يدن عند الدجى فينا أم عند الصلاة جمع فينا شفق تقيلا هذا شريف الذي من الصفات مدن من زاد والده إسلام ودينا شفق تقيلا ذاك الصعب أبي صعب خير منا إلى كل ساعة ذاكر من أريخ النبي نال ما نال في سباع ولما يقول سيدنا محمد أهل بيت النبي شيخ طالب يا بلاغا واخ nit ñi di jóge sanaam seen a Cheikh Sadou dañu la wax kuy Cheikh na Cheikh Sadio Yeti Cheikh Sadio Taqiyullah yow sa maam gay na gay nelaw ca saalixiina nee na wayuma kenn njabootu Cheikh na Cheikh Mamed Fadal dong laay way salaam على من هو في حوض كشمسي وكالحمري مبهادي في العالم قسي وما جبلت أم جنجن ستسيدنا وأنا تجد سرق شفاعتك ولا يا عزة رسول الله بنو بيدي لبو بيدي بروم دكار فوكي بيتي ناري سي دكار زماني بروم سنغي برام دمغي برام برام سما الكاتي كاي يا لبو بيدي بروم دكار Bye. daañu àq ndax lii ñuy def. Modou Mboup. dafa bokk ci balaa Cheikh Mbaye wax nan la jox rajo bi ñaari minute ñoom ñu ngi sëlbe bi Jalla. looloo dëgg de. Salick mooy lan la jox rajo bi. waaw. xam nga lu tax ma laaj rajo bi. gudd mën ko indi wuñu ci gàtt gi dañoo bokk ci nit yi. ñii fi nekk al bayti rasul la ñoom rek la ñu yaakaar sang bii keroog ba mu déparé Nimsaat ak léegi tàggoowul ak moom waaye sër bi sëñ yaa may mel waaye jàpp ci jur gi maye borom jur gi ko yaa moom jur yaa la Cheikh la Cheikh Saad Bou Cheikh la Cheikh Saad Bou Cheikh سواء محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم من سرجل السحر كمثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزارع أخرج يفسده فاستوت على سوقه يجب السوء ليقيس بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا سواء رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بوب دغه مكه جëm bi dina tul mëna wala ni la mel bi xamalay waaye tawaxal baadiru alayna moo tax bi nga demee nag teexal teex na teex sàkku teexal xalifa tubaarkàlla macha allah def teex walul na teexal xalifa tubaarkàlla teex walul na génn moo génn yoof génn tubaarkàlla macha allah taxal bi génn ñu tattanu la gattanu la xamal nag yow mi yaay teex na teex sàkku looloo waral nag tubaarkàlla ñu jël kàddu dina ñaanal ay dara sëriñ yàlla bàyyi leen sunu kanam commencé woon nañ ko début commencé ko lim saan ak bismillahi rahmaan rahim di la ñaanal nag sëriñ sëñ bi nga ñaan ci barke sama rasulillahi yàlla nañ fi toogaat Serigne ci sa barke maam Cheikh la Cheikh Sall looloo ma indi woon looloo tax te ñëwal nag lu mu wax li may wax lépp li muy yàgg-yàgg mënta ñàkk damay bu ma yàgg Serigne yàgg gi ma yàgg ci rajo bi daa am lu ma bëgg nañ ko def ma doog a joxe rajo dama yàgg ci rajo bi waaw te ci xayma bi dama yàgg ci xayma bi ba mu départ ba léegi tàggoo ma ak ñoom lii mënta ñàkk ñëwal ko moom dépasse bisimilah ay dara kaddu gaa ngi ko topp waaye nag sa bàyyi fekk nga nee rek borom xayma bi moo aaye xayma bi tax. waaw waaw xaymaa ngi doog a jeex. waaw ñu dégloo ñu dégloo nag léegi. seqalul na xaymaa ngi doog a jeex. jeexagul day soog a tàmbali. waaw dégg nga lii. lépp naa bañ a def. jeexagul day soog a tàmbali. aywa jeexagul lancement la rek fi mu ñëw kon léegi ñu andi déglu ñu ñu andi déglu Cheikh Talib mooy doomu xalifa bi mooy bëgg a yëkkati kàddu kon ñu andi déglu. bokki taalibe yi bokki jullit ñi ko ñu déglu ñu ngi ubbee kàddoom ci turu yàlla bu sell muy bismillahi rahmaani rahim muy julli di selmal ci maamam yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moo mujj ci yonente yi muy sang sunu yontu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ne wokk mbokk waa ngoon Cheikh Libaas ak délégation bi nga àndal comité d'organisation ku nekk ci yéen mi ci sa ak ci sa sant nuyu waa nga xamante ne dafa la ñu teraanga ju rëy comité d'organisation bi Cheikh Diaga te mu jiite ko def ko ni mu gën a rafetee di nuyu ñi fi teew ci waa kër yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Cheikh Mouhamed Lamine wul Cheybeta ci liggéey ak taxawaay bu rafet ak pas-pas bi mu am ci xalif général Cheikh de Cheikh Saad Bou Cheikh Mouhamed Safiullah mi ngi dellu di nuyuwaat gaynde Ngor خير شافوا لنا نانا شي يقولوا لنا كانوا كيكايا روحنا ديما خلاص تيمو waaye pédagogie mooy nga répété nga wax li nga wax pour nit ñi gën koo xam gën koo dégg cheikh bu na taxawaayam ak xalifa bi cheikh Saad Bou Cheikh Mouhamed Abdoulaye ñëpp xam nañu depuis daaw balaa loolu rawatina nag bi mu nekkee xalifa ba léegi wedd gis boobu ñëpp teg nañ seen bët taxawaay Cheikh Oulana maanaam mi ngi si kanam si xeex bi si. Cheikh Oulana maanaam dañu wax ne général la bu jiitu mi ngi ci kanam moom di xare bu bokk ci moom mu bokk ci xare bokk ci genre bokk ci def ci alalam taalibe mi taxaw mu taxaw moom ci boppam. mu liggéey lépp loo xam ne xayma bi soxla na ko mu taxaw def ko ñu gën a rafet te yéen ñi nekk ak moom yéen a ko gën a xam ju ko Cheikhul Lula amul fenn foo xamante ne mas naa wax li mu def.

ngeen ko def a. ngeen woon ne man ngeen ko ngeen ñëw ren def lu raw loolu. xamoon naa tertu bëccëg. xamoon na tertu bëccëg. mais tertu guddi ci ngoor la gën a feeñ. mais tertu guddi ci ngoor la a fese. li tubaab di wax spectacle son et lumière. spectacle son bi mooy tasaayit. son bi ak lumière bi yéen ñëpp ko gis nañ ko. lumière gis nañ ko ñun ñëpp ñun ñoo ko gis. waay waay waa Ngor jaaraama. waay waay waa Ngor jaaraama. waay waay waa Ngor jaaraama. waa Ngor yéen a boole. waa Ngor jaaraama. yéen a boole waa Ngor. mu ne am na benn question boo xamante ne bëgg na koo xam. dafa am e benn wird bu ñuy def xaaju ibaada boo xam ne ñun xamuñu ko. wala benn jaamu yàlla boo xamante ne ñun ëpp nañu Cheikh Jim Samb. Cheikh Libaas foog ngeen joxe secret bi. ah déglu mooy déglu mooy ñu wax dugg. mu ne ñu déglu ko tuuti. ndax dafa am lu am lu leen yàlla may lu surtout Cheikh na Cheikh ne xam nañ ko si mandu surtout Cheikh na Cheikh Saad boo chef ne xam nañ ko ci mandu ci tabe ci ba ci ci ci ci lewet ci am yërmande ci yi ci ko qui ko seen biir indi leen ko dëkkal ko seen biir wala am ngeen sir secret ne kenn amu ko xamna da ngeen ko bañ wax rek kon da ngeen ko bañ wax rek amna ay dara serif li firndeel loolu kon waa Ngor seet nañ seen bopp ngay waa jàng waa jàng cheikhulu na la waa jàng waa jàng waa jàng yàlla fi yàgg te wér waa jàng cheikhulu na la yàlla fi yàgg te wér mu ne li firndeel loolu ne secret bi du loolu rek bi Cheikh Saad Bou Cheikh Mountakha nekk ci xilaafa e bi bi ngeen bi mu ñëwee Ngor def ngeen daaw kenn musul def wante yàlla bi nga xam waaye yàlla mi nga xamante ne mën na lépp te dara teewu ko. Cheikh Saadou Cheikh Mouhamed Abdallah waa Dakar la xam na Dakar. Cheikh Saadou Daw Cheikh Mouhamed Abdallah waa Dakar la xam na Dakar tabarakallah macha allah. yàgg na fi dëkk. yàlla may leen. yàlla may ñu. ni à chaque fois su ñëwee si xayma bi si tournée bi. ne à chaque fois bu ñëwee ci xayma bi ci tournée bi. mu def tamit dalakaayam ngoor. mu def it dalakaayam ngoor. kon yéen am ngeen secret. kon yéen waa Ngor amaa ngeen beneen secret nag. moo li si moo li si ak li baas wax sànq rek. des na lu Cheikh de Cheikh Saad Bou waaye nag ñoo bañ Cheikh Ibrahima bu am na leneen tamit. xam ngeen ni ñu ngi jóge ci football. la football léeg-léeg nga gagné ñu gagné saa yi nga saa yi ñu gagné mooy àdduna. loolu ñu ngi masaw sportif yi. wante xam xam ne tubaab daf koy wax bu bokkee final maanaam. final bi final bi. dafa am fu ñu koy organisé. dafa am fu yi dañuy xool. en ah, général organisateurs fi gën a yaatu. daanaka yéen tournée Cheikh Saad bu Cheikh Mouhamed Taqi. daanaka yéen tournée Cheikh Cheikh Saad bu Cheikh Mouhamed Taqi Allah. final bi fii lañ ko def. final bi fii lañ ko def kon ba tey nga ngor dafa mel ne kon yéen daal seen mbir dañu seetaan ko am ngeen secret li Cheikh Tall booy wax kon mbir maa ngi seen biir. jibilaay yow foog moo xoj da nga jox ma secret man yow laa gën a miin yow moom moo lay xoj suñu génnee. léegi gannaaw loolu comme que bëgguma guddal. léegi nee na gannaaw loolu bëggul guddal. am na benn ndigal benn décision bu Cheikh Saad Bou Cheikh Mouhamed Abdallah xalif général kullu xaadir dogal wax te ma bëggoon leen ko yëgal yéen ñëpp mooy dafa jël décision Cheikh léegi Cheikh mooy dafa kon kaddu gaa ngi noonu

كيف قال لك كاتبي مول شيخنا الشيخ سعد مول يوم الشيخ محمد تقي الله يوم الشيخ الخليفه يوم شيخنا الشيخ سعد مول خليفه جنرال كل قائد جاء في سوداء يوم الشيخ الشيخ محمد لمين يا لا لما دلي ما تقول سجل بنيوك تفرق بين الخلافه ما نجيك الشيخ تحمي بيها مدام ما واي شريف بيمو بيمو بيمو جاك الشيخ كي واتر يوم صلى الله عليه وسلم وش محمد يمين بي كي كون يارين خير كي كون يارين وش يحكمون خير كون لولو يوم نم لن كوي أدنك لن كوي ديك ما رد الشيخ الشيخ سعد وفي الآن الشيخ نن نيورني أدنوين كون في خلاف أمريكا كي تساقون كون لولو دي وانا فردي دي تور دي كل شيء له حظ من اسمه ku nekk sa turandoo dangay jël moom juróom-ñaari jikko kon Cheikh na Cheikh Saad Bou moo dellu si waat jamono gars yi. Ah, te bu xoolee ñi ko dar ñi ko dar yëpp ay xalifa lañ amul xalifa bu mos a am loolu ñi ko dar ñi ñëpp ay xalifa lañ ku ci ne ku ci ne ay junni junni junni ñoo nekk sa ginnaaw nga bàyyi lépp ak saa yu bopp kon Cheikh na Cheikh Saad Bou ba léegi ñun ñëpp ñu àndandoo déglu Cheikh na Cheikh Saad Bou daw Cheikh Mouhamed Taqiyullah xalif général kullu xaadir di Cheikh na Cheikh Saad Bou ci jamono ñu déglu xanaa topp erreur la de. da ngeen a waa Ngor góor ak jigéen mag ak ndaw yéen ñëpp kenn ku nekk ngi leen di ak sa sax. ku nekk mi ngi jaay ci sant ak ci sa te yéen ñëpp kenn ku nekk mi ngi lay jox sa cër di la màggal te it mi ngi leen di ñaanal yàlla. teeru bu rafet bu baax bi ngeen ko teeru yàlla remplacé leen ko ñi bëgg xaalis bëgg nekk ay milliardaires yàlla def na ay milliardaires. amiin amiin. ah mool yi nga xamante ne dañuy dem géej yàlla jox leen jën. jëlee jëriñ ko bëggee. ak ñi nga xamante ne ay baykat lañu. yàlla defal leen seen mbay lépp nangu barkeel. mu ne yàlla sunu borom dara tëbu ko ñi ci biir réew mi ak ñi ci bitim réew ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal yàlla jàmm yàlla dafa leen jàmm jàmmi bii ak jàmmi bi ci yàlla dafa leen jàmmi àddina jàmmi àllaaxira ci mu ne gannaaw loolu ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla sunu boroom yàlla sunu boroom yàlla sunu boroom wàcce fi ak salaam ci réew ak réewu jullit yëpp ci sunu kanam ak sunu gannaaw ñu ngi leen di ñaanal yàlla yàlla saxal ñu ci yoonu siraatul mustaqim musal ñu ci waa ji nga xamante ne moo di iblis yàlla nañu yàlla musal musal leen wax na yàlla suñu borom ah mu ne ko ñoom ñëpp dinaa fexe ba sànq leen ñoom ñëpp dinaa fexe ba sànq leen dinaa fexe ba dinaa fexe leen ah sama jaam ñu seetlu ñu baaxee nag doo ma sama ci ñoom dara doo ma sa am ci ñoom sañ-sañ yàlla yàlla boole ci jaamam ñu xamante ne doo am ci ñun benn sañ-sañ. sallallahu aleyhi ve sellem. mu ne gannaaw loolu ñu tàllal loxo yàlla suñu borom ñu ñaan ko ñu mu ñaanal leen yàlla faj aajo ngeen ñaanal ko yàlla moom it day leen ñaanal yàlla te ne ñaan bi nee jaay leen ko de nee na yàlla borom bi subhanahu tabaraka wa taala la koy jaay maanaam yàlla moo tax yàlla kese képp dong moo tax mu leen di ñaanal waaye yéen bu ngeen koy ñaanal na yàlla képp képp kese tax ngeen ñaanal tarbiyu gi ngeen di def seen alal ji ngeen di jox da ngeen ko joxe ngir yàlla ngir jëm yàlla rek bu bañ a dara bu leen ci sàkku leneen lu jëm yàlla bu leen ci sàkku bi dul ngërëmal yàlla kon ñëpp dañuy wax ne Cheikh na Cheikh Sadou Cheikh Mouhamed Takullah yàlla na fi yàgg a déwén ku ko wax yàlla na fi yàgg a déwén Cheikh na Cheikh Sadou Cheikh Mouhamed Takullah yàlla na fi yàgg a déwén wax yàlla na fi yàgg a déwén Cheikh na Cheikh Sadou Cheikh Mouhamed Takullah yàlla na fi yàgg a déwén ku ko wax yàlla na fi yàgg a déwén waaye Cheikh Libaas yi waa Ngor yéen a góor rek jërëjëf Amen. Amen. yàlla fi yàgg lool jërëjëf Pangor jokki dégg ñu bare bare bare Cheikh wulu na Cheikh Mamin kaane yàlla na yàlla ñu ko rappal ak jàmm di jaay si naam sallallahu alayhi wa sallam waaye bi chance mérite jërëjëf 是的。